comme nous que ko commission nationale de recensement des votes fait une proclamation résultat d'abord un fait parce que nous avons dit que la coalition Yewwi Askanoui Wi PV vous commission nationale de recensement des voix. Vous leen ci CNPV, PV rapport coalition eu à Wi ce mais ce que vous xam d'abord malgré mascarade malgré fraude massive malgré achat de conscience malgré persécution malgré ceci, malgré le malgré emprisonnement bi Macky Sall n'est plus majorité dans ce pays Macky Sall la majorité assemblée nationale Macky Sall la majorité du suffrage Moi, le premier enseignement faut président de la république bi nga troisième législature presque 140 députés la amoon mu ba amatul majorité di xëccoo quatre vingt députés loolu moy, daanu na daanu bu méttee méttee métti métti Ta daanu bu nit daanu bu dabee nit da ngay wut ndam ca daanu la ndam ca daanu la moy nga daanu avec élégance mais mom dafa daanu perte ba paré daanu avec inélégance daanu avec inélégance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 vous avez 1 million 71 000 you Vous avez 471 000 you walu. Nous nous avec 1 million 540 000 voix. 42 000 voix plus précisément. Manam 47,3% des suffrages alors que mon am 46,5% des suffrages. la majorité de l'Assemblée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 ñu nangu tey jii nii ngeen précipité résultat yi tey est-ce que xam ngeen ni il n'avait pas obligation tay ci 17 h mu proclamer résultat est-ce que xam ngeen ni mënoon naka def ba suba minuit lolu daf ñu doon laisser une journée encore pour li ñu jot gis ci département yooyu mu leer leen ni buma ci se sëggaatoon comme ni ma defoon direction générale des élections dina xóot yaatal te buma ma xóotee yaatal leer na leen ni dina waqi deux députés yooyu dinaa ko jëlaat leer na nous ñoom moo tax ñu précipité proclamation résultat à 17 heures alors que délai yi day dem ba minuit looloo tax ñu bañ ñu ubbi kees parce que la moitié ca jot comme échantillon gis ngeen irrégularité ya ca feeñ ay PV yi nga xam ni kenn signé wu ay PV yi nga xam président de bureau bi ak assesseur am ak secrétaire am ren moo koy signé Ben coalition di ko signé ak yeneen type d'irrégularité yi ma jot a wane tax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 assemblée moom opposition parlementaire